asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk ñuy topp ci chaîne bi ak ci internet bi ñu leen di nuyu di leen ziara comme niñ leen koy defalee saa yu nekk rek di leen indil benn sujet ci gént ndax gént dafa nekk xam-xam boo xam ne xam-xam bu jafe-jafe la ndax bépp xam-xam boo xam ne dañ koy dégg rek day nekk xam-xam bu jafe li la ciy dimbali moy nga bari ay takk ak bari looy seetlul sa bopp say gént ndax lu ci am gént yoo xam ne dañ koy tudd achage nga xam ne ay benn benn lay doon nga xam ne kenn du ko bokkale te nag dañoo dikk ak yéen ci lu jëm ci wàllu yére sol yére sol yére yu xar wala yére yu lakk wala sànni say yére wala lem ay yére wala ku nekk barsàq yooyu yëpp dañ leen ci bëgg a indil ay takk yoo xam ne di ngeen ko mën a takk mu mën leen a jariñ euh, ku gent sol yére yoo xam ne dafa takk loolu gàllankooru yaram la mën naa nekk cat ci moom mooy yére yu takk wala sol yére dara tis la dana tekki loolu ku gént sañse sañse mooy sol yëre yu bees wala yëre yu am valeur moo xam dangaa jëm ci ceet wala dangaa dem ci dangaa dem ci ngénte wala yu dema noonu moo xam dañ lay maye nga sol nga sañse yooyu yëpp day tegtale ay xat-xat ba tey koo xam ne <clears throat> dafa gént sol tubayu jigéen yu góor maanaam jigéen bu ëmb bu génte sol yu góor loolu mën nañ ko tegtale doom ju góor lay doon bu fekkee nag góor moo sol yi jigéen loolu gàcce lay doon ci moom ak gàcce gu muy am la nit bu fekkee dafa sol yëre yu wëyu yëre yoo xam ne yëre yoo xam ne daal tàmmuwuñ ko nit ku baax da du ko sol loolu mën naa tekki bàkkaar bàkkaar bu muy def Euh, nit tamit bu fekkee danga nga gént sol yëre yu xottiku loolu day tegtale ak ñàkk boo géntee di lem sa yëre loolu dana tegtale tukki ku gént sa yëre di lakk loolu ba tey coow la moo yëre yu lakk ñaare tamit bu fekkee koo xam ne dafa feebar gént sol yëre yu weex loolu mën naa nekk càngaay ci moom mën naa nekk it bàkkaar maanaam koo xam ne yàlla da koy setal ci bàkkaar mën naa tegtale ñaar yëpp ba tey ku feebar bu fekkee dafa gént di fóot ay yéreem loolu mën naa nekk ak wér ci moom ak wér la nit tamit bu fekkee day faral di gént di fóot ay yéreem rawatina su fekkee jigéen la kooku ñaari ëmb dana ko jafe bu dee ku nekk ci coow mu génn di fóot ay yéreem kooku lañ koy tuumaal defu ko maanaam danañ ko danañ ko setal léegi nag mu des ki nga xam ne day yëngatu ci tur yàlla maanaam day dox ci liggéey tur yàlla lu baree bari moom léegi léeg géntam mën naa wuute ak gént ñeneen ñi ndax kooku bu fekkee dafa gént sol yëre yu weex loolu leeru diina lay doon ci moom wala mu gént ñu ne solal ko manto wala lu mel ni ba yëre kilifa daal loolu daraja ju muy am la ak ba fa suñ boroom dafa am ku ma mase nettali genn gént goo xam ne yaayam la ko loon yaayam dafa faatu woon nag ci jamono yële mu gént gis yaay ji di yebbi maanaam di yebbi ay yëre di ko joxe ma ne ko kooku day li muy tegt fam nekk mi ngi ci teraanga mi ngi ci teraanga mi ngi ci naataange loolu ñaare bu fekkee ko xam ne dafa nekk barsàq moom eh, ñoom seen gént ñaare du soppiku lu bari xaal boo leen gént rek ñaare xaal boobu lañ nekk kon mbokk yi loolu lañ leen indiloon ci lu ngeen mën a jàpp ci tënk rek ci wàllu yére mën naa gën a yaatu lool nag waaye ni takk-takk bu ci am solo la di leen fàttali ngeen woy di abonné ci chaîne bi ndax bokk na ci li euh, koy dundal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.